asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di wax ak ci film Madior ak Dione vraiment épisode bi moom film bu neex a neex a neex la wallaahi man dama si concentré wu de trop mais bi épisode bi passé moom choqué na ma jooy naa sax jooy yu métti métti métti parce que deewu Mariama moom lu mu métti la dama suma sawaru dee mais encore boo xoolee bis bi Mariama parce que warul seet paa bi parce que sërëm la. Mariama yaakaar naa bàjj ci sama jàngat man sama jàngat bopp dama jàpp ne moom mooy bàjjanu Maajoor yaama yaama ak Mariama yaama ak Joor ay doom day lañ naar moom ci mooy sërëm la man loolu laa jàpp histoire ba moo wax naan jigéen bu rafet la woon te ñu wax ko moom ak yaam moom ak naar yëpp expliqué que seen doom yi naar expliqué que yaama moom expliqué ko Joor seen histoire yaay la man loolu laa jàpp paa bi la ñoo bokk yaay moom ak naar ñoo bokk ndey ak baay man loolu laa jàpp donc kii joor dafay nekk dafay nekk cousinu yaama la cousinu maajoor la maajoor gaa ñaari boor la bokk moom parce que papa yi joor mooy najaayu maajoor aywa pa yaayu yaayu joor tamit mooy bàjjunu maajoor ñoo bokk ñoo bokk moom papa mi bokk benn ndey léegi yaakaar naa daal il fallait mu dee parce que bu deewul woon day sëy ak te bu sëy ak paa bi waruñu sëy parce que la noonu man daal loolu laa gis après loolu moom mujj defal sax bu ma xalaatee loolu loolu moom mujj defal sax ba ma xaw a dal mais naar moom defetam mi ngi ñëw parce que day day échec ba pare dem ba dafay dem ba échec bu échecgee ba pare amaat déception ni sëram la rey affaire yooyu yëpp ñëwaat ci kawam moom il faut mu am dana déception mi ngi ñëw. bësam ngi ñëw mu ci yoon bi yàggatul sax paa bi commencé na si ngeen ndax dafa rëccal wax idio fis si kanamam noonu mu waxee idio fis si kanamam noonu lay rëccal wax si kanamu maajoor idio peer boo moytu mais daal ah neex na de mais joor moom na tane bu gaaw joor moom waru woon feebar tonton libaas nag moom weeree na bëy bi moom amaana bu ko bu ko bu ko saraxe woon sax xëy na accident bi sax mënoon na pa mënoon na maire bi mënoon na réussir si opération mais sérieux wu tonton libaas moom dafa weere mais maa ngi leen di jaajëfal bu baax di kontaan tamit ci bu baax a baax di leen ñaanal ci kanam ci kaw ci kanam bu wóor yal na leen yàlla may wér te may leen yokk seen dëgëraay ak seen taxawaay bu baax a baax. Leuz TV maa ngi leen di ziar di bëggoon ne participer ci série Madior ak Dior waa Dior de instant bi moom ni mu mel nii moom. instant bi moom état bi waru ci woon a nekk parce que bu nekkee ci état bi nii yaayam nekk fii ñii dañuy am dëgg ci seen kaw te dañuy am lu leen neex instant bi waru woon a dof parce que problème bi kon du neex a lijjanti instant yi ni mu dofee nii nekkul kenn ko xamante ne am na ko ko mën a jàppale mën a lijjanti problème bi te instant yi ñee ñu ngi kontaan bu bëgg dee. allo salaamaaleykum waa Madior ak Dior maa ngi leen di nuyu di nuyu ñëpp di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla soo leen di dégg message bi mu fekk leen yéen ñëpp ci jàmm bugg a participer tuuti nag ci Madior ak Dior bi épisode bu mujj bi metti na trop daw na yaram waaye niñ jàpp rek ne àdduna moom nii dafi tëddee parce que ñu mel ni jo ñu mel ne naar ay junni junni ñu ngi ci dëkk bi di def li naar di def di yàqali naar di yàq waaye nag tôt ou tard yàlla dina leen feeñal joor nag yërëm naa ko trop ñëpp yërëm nañ ko waaye nag nañ bàyyi ko yàlla parce que yàlla dina leeral yépp dégg naa nag suñu benn xarit bu dugg dina chapeau dina chapeau naar naar lay wër mais voilà personnalité naa euh, bon naar en personne bu fekkul ci théâtre bi bon peut-être naar mun nañ ko mais si théâtre bi rôle bi ñu ko jox foofu moom gisuma ku fa war a wax naar chapeau parce que defu fa dara loo xam ne lu baax la ci suñu société bi ñu ñuy dund ñu mel ne naar mi ngi fi mais tamit kër gu ñu nekk dañ koy tas konte naar faut pas ñu encourager ko si li muy def à chaque fois critique la war a am jour ba muy changé nag ñu defal ko kii bu baax mais actuellement moom naa kenn waru ko encouragé parce que defu fi dara lu baax doomam yéen a ngi wax ne xale bi yaayam lay suivre mais xale bi moo gën a bon yaayam parce que yaama ba mu demee si salon bi wax ak joor ba pare dafa génn woote téléphone déjà foofu elle a menti dafa fen mu ne yaay joor dafa ko xëpp saafara te loolu waxul dëgg ngeen baal ma si guddal bi parce que donc ojo yi warul gudd parce que ñu si bëgg participer bari maa ngi jéggulu di nuyu ñëpp di leen ñaanal jàmm wasalaam. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen di béggee di leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm. doon wax tamit ci série joor ak joor bi waaw série bi nag au bi neexoon na torop mais nag yaakaar naa comme ni ko gaay ñëpp waxee changement war na am parce que tamit euh, naar ak doomam mënuñ fuñ toll tamit di am dëgg bu yàggee affaire bi dootul neex te Dior warutoon dof léegi série yi dañoo bëri rek ku ci dara dara rek nga dof te dof bi tamit yombeewul noonu jékki-jékki nii rek dof loolu yombut te ñoom niñ koy defee léegi dara ci série yi léegi dara day arrivé rek ñu ne dof na joor warutoon a dof dafa waroon a dëgër këcc lijjanti mbirum yaayam mais dof bi mu dof day jël temps yu bari day perdre temps yu bëree bëree te war mu warutoon a demee noonu daal foofu daal xaw nañ faa juum daal waaw dof gi moom dafa gaaw torop torop torop torop torop xaw nañ faa juum série bi neex na torop ñëpp bëgg nañ ko ñu ngi koy suivre waaye daal war nañ ci def changement parce que ba série bi commencé ba léegi naar mënut a dëkk di def lu bon te kenn jàpp ko loolu c'est impossible te paa bi tamit gis na li nekk ci kër gi gëmm bëtam bëggut a gis dara nit ki loo bëgg-bëgg sa rakk te sa rakk nga xam ne jubut danga koy jubanti wala nga génnee ku mu dem yoonam comme mag la am na responsabilité am na doom nekkatul xale xam na nu ñuy tegee ay diil kay paa bi na ubbi ay bëtam tamit xool noonu moo gën série bi neex na torop nag ñu koy suivre waaye daal gars yi daal li ñuy mi moom bari na ci série bi moo tax daal ñoom war nañ mën def tuuti changement ok jaa ngeen jëf leen di ziar bu wër asalaamaaleykum asalaamaaleykum waa Madior ak Dior maa ngi leen nuyu yéen ñépp ku nekk di ñaan yàlla sooy dégg eh, audio bi mu fekk la ci jàmm ju wér a wér jàmm ju bëree bëri xeewul bu bëree bëri bon ma bëggoon participer tuuti ci émi ci série bi di leen wax ne rekk toujours lu may wax rekk naar moom nañ ko seetaan parce que àdduna kenn du def lu bon dëkk si def lu bon rek ngay réussir chaque fois soo defee lu bon rek nga réussir parce que naar depuis mu commencé def ay affaire am yu bon à chaque fois on voit que ne réussite la ciy am mais nag bés dina ñëw képp ku mel ne naar di def lu bon wala ngay yéene nit lu bon bis dina ñëw yow kese yow yaa siy def ñi ñaanal yàlla joor nag yàlla dina ko delloosi si si xelam incha allah rabbi yàmm nag ñi ngi koy wax ne amoon xel mais yaam moo gën a bon yaayam ñoom ñaar ñëpp a yam moo gën a bon yaayam loolu rek laa amoon si lu may wax maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm wasalaam man la aji waaw vraiment série bi neex na yéen a ngi dund suñu stress fi ñu nekk si dëkk yi sori yi génn Sénégal xam nga di ut des fois tu as des problèmes ndax koo waxal donc série bi sax dina la def nga reetaan def la nga wàcc sa stress bon je vous salue maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp maa ngi leen di ñaanal yàlla jàmm ah. à la prochaine bisous. waa salaamaaleykum waa sëñ bi waa maa ngi jégalu bu baax a baax maa ngi jégalu waa série bi kër maa ngi doon bëggoon doon série Madior ak Dior bi waaw. wax dëgg yàlla métti na trop métti na trop yam waaw waaye kii moom naar moom li mu def moom wax dëgg yàlla mi bëgg a na moom ëpp na trop na wàññi te dafa yomb trop waaw moom wax dëgg yàlla warutoon a dof moom waru ko woon def ñoom il faut que rek ñu yóbbu ko ñu faj ko mu tane mu mën a venger wu trop ci li yaayam génn àdduna mère bu baax wax dëgg yàlla moom kenn yéenewu ko ko de waaye moom série bi moom amoon na ci place trop ba ci kanam waaw dee bi moom wax dëgg yàlla dafa teel amoon na ci place trop te li ñuy def nii lépp lu dafa am dafay dafa nekk lu am waaw dafa nekk lu am nag man wax dëgg yàlla du ma nëbb sama man la maam Kumba Sall maa ngi sëy Petewara dëkk bi ñuy wax Petewara rek waaw fi lay sëy noonu li ñuy dëgg yàlla neex na trop te am importance la te lu ñu joué nii lu am la soxor dafa am torop am na nit ñu soxor am na nit ñu nga xamante ne dañuy dugg ci vengé wu jëkkër ak jawar yàq ko menage yi ñu koy yàq yàq façon bu yàq bu nekk dinañ ko ko ci def wax dëgg yàlla lii moom metti lu te nañ ko torop te man wax dëgg yàlla metti na ma waaw fa metti di yem ndax nit ku nekk danga koy xool ni sa bopp waaw mën nañ ko def sa bopp ñu def ko sa rak wala sa mag wala sa doom waaw te mën a gis ñaa ñi bëggante ñun nit ñu fexe ba yàq diggante boobu dinañ ko def waaye dañu delloo suñu xel ci yàlla rek maanaam yàlla moo ñu ko teg waaye nañ koo nangu rek suñu borom waaye suñ doon def nit buñ buñ ko defee dara mu metti nañ tamit ñooñu nañ fayyu ñu xam def def lu bon ni mettee ndax nit ku nekk nit nga soxor moom wax dëgg yàlla si lañ ko fekk koy bàyyi waaye am na si yenn soxor yoo xamante ni moom ëpp na trop ba ëpp fu mu yemee ëpp na trop ba ëpp fu mu ëpp na dëgg yàlla nañ wàññi lu bon yi ñuy def nañ ko wàññi bon na trop te dafa ñaaw na trop te dafa ñaaw yenn yi dafa sax métti ci xol man bi ma ko seetaanee bark suñu Babacar si sama xol bi moom métti na trop métti trop ndax yenn yi moom ku koy def nit moom defal loo ko dara dara dara dara def la ko yéen tam maa bu baax am ngeen jërëjëf ak jaaraama seen kii yi ngeen teg théâtre bi wax dëgg yàlla neex na trop neex na trop te nit ñu bare ñu ngi ci yeewu nit ñu bare kuy def lu bon rek boo ko seetaanee sa xel dana la war a may nga am yaraat ginnaaw nga ne man lii may def baaxul waaw maa joor moom tamit wax dëgg yàlla sama fans la trop moo joor wax dëgg yàlla bëgg naa leen trop bëgg di jëm yaa ma nag moom lii yaayam di def na am teggiwaat tànkam bu baax moo xam ne yaayam ci lu bon rek la koy dugal li muy def dara baaxul ci lii day tax rek xale yi mu jamono yi dañ koy jàng te xale yi war nañ leen yee ci ci beneen fànn ci lu ñuy seetaan série bi ñuy xool naan ah bëgg naa diw sama yaay kii li ma bëgg rek dinaa ko bëggal sama yaay lii ma bon la li may soo naa ci ànd ak moom déedéet jamais de la vie nan wàññi yu bon yi ñu def ndax xale yi koy seetaan moo tax ndax ci mujj jamono lañ nekk te xale yi léegi ñu ngi màgg ñaar ñi dañuy bokk far ñu xeexante kenn ko sa morom defal lii lu bon kenn ko defal lii lu bon déedéet du noonu ndax xale yi koy seetaan tax man joxe cër te wàññi bon yi ñuy def asalaamaaleykum Lu Xew TV maa ngi baax leen ziara seen wàccuwaay wax naa bi vraiment met na trop trop met trop man de bi li ma si jooy yaakaar naa gëj naa koo jooy si série vraiment parce que yaama ak naar naar doom ji mooy yaama ñoom de gis naa ni ku bon ba taay mais duñu fii. ndax jàpp doomu aadama iñaane ko ba rey ko ndax lan ndax alal lu ko fi te xamoo alal jooju yow tam di ko jariñoo boo ko amee wala deet xoolaat lañ def joor tey amul lu dul yaayam lay saan tey mi ngi nii dof xel mi dem na mi ngi dugg fu ne ndeysaan mbokk ñoom tamit ñi ngi koy wër gisaguñ ko xoolal xew boobu mu dem tey saan fexe ba jël na liir bi dugal ci saa bi fii defe ne moom mooy yaayam ba tey turu yaayam bi la nekkee di wër doomam foofu dafa daw yaram dafa daw yaram trop trop trop man de woon yàlla dama see jooy jooy ba nga xam ne parce que kenn ku nekk danga koy xool ci sa bopp ndax yaay yaay dafa dafa dafa neex yaay dafa neex di jékki def ko nii xañ ko yaayam ndeysaan ci seen mariage bi xañ ñoo ko naroon a bokk vraiment naar ku bon la daal naar daal en tout cas ku bon la dina am genre kii yoo xam ne boo ko joué même dañuy yeete mais dañ fiy doise far far jóge sax yow far la bañ ndax defin bi rek moo metti ci boppam. tey naar man nii moo ko gisoon tey jii moo ko bëgg te dara lii lii lii dara yeete la rek mel tee rek yow boo gisee sa xel mi sa foofu lay dem vraiment doy na waa daal bii daal moom bu am solo la lépp ci biir kër yi nag lépp lépp mi ngi ci biir kër yi duñu wax rek mi ci biir kër yi waaw. sama waa di kontaan ci yéen bu baax a baax di kontaan ci seen épisode tey bi léegi laa seetaan dëgg yàlla kontaan naa ci bu baax bu baax macha allah kontaan nañ ci bu baax vraiment Dior ah macha allah yërëm nañ ci de mais nagam feeñ na rek baax na parce que ñoom bu ñu ko yóbboo incha allah daañu xam ne ci wérut maa Dior jarul muy tiit xam ni ki wérul donc jarul tiit après xanaa dañ ko bàyyi mais ndax nit moom. bu wérulee wérul rek ngeen mën ko condamné waaw nañu sant yàlla nagam gis nañ ko rek man tiitoon naa trop yaakaar day dem ak liir bu feneen mu gànc wala yu mel noonu comme que nañ ko ak liir bi ci jàmm alhamdulilah rek la ñuy wax waaw kontaan nañu nag bu baax a baax waaw kanta yaama nag moom te jii def na acte bu bien parce que moom comme que wax na secret bu paa bi ba paa xam ne li ko maajoo daan wax yëpp si naar dëgg la rek jeex na léegi paa bi dana jël ay mesure am dana xam ni hmm. maajoor lu ci dëgg la nekkoon donc loolu rek aussi man loolu lu ma neex la ci hmm. vraiment beneen bi mooy yaam moom koo xool xam ni tranquille dafa tiit dafa tiit moo tax mu xalaat gaa fekk doomam di ko wax naan ko yaay tiit naa tiit na te du moom sax mën na am sax lu mu def li sax moom du loolu mooy ñëwaat ci moom mais deret mooy ñëwaat ci moom donc te bakkan dafa foor ku rey bakkan bëgg nekk tranquille ta nekk donc léegi moom koo xool xam ne tranquille su gisagul dara des na parce que moom xam naa moom lii ñëw gën a metti pire bu baax sax li mu nekk nii nee na dafa dem moom de xam ma kan waaye bu yëgoon du dem fanaane àll parce que dafa dafay fanaane pour ñu xam moom mooy kan moom nag dem fanaane àllam dañu ci xam moom mooy kan tax na frère am xam moom mooy kan su yëgoon du fanaane àll bu toogoon ci kër gi yaa ma du am possibilité pour wax paa bi dara mais demam mu dem absence am bi mu moom moo tax yaa ma ma am fitu wax paa bi secret bi moom dafa demoon fanaane pour ñu xam moom mooy kan pour pour ñu ñu xaw yëg place am mais moom yaakaar naa moom moo ci mujj xam boppam. dan ki dana xam ni ku tukki ñu reer sa gannaaw doom reer na ci gannaawam mais kontaan nañ bu baax ci yéen ñoo ngi leen di ñaanal rek seen euh, macha allah yàlla dëgëral seen taxawaay bu baax a baax te yokk seen mën-mën bu baax a baax macha allah sant ñu yàlla trop kontaan nañ ci yoon trop parce que yéen a ngi nuy bégal noo ngi gis suñu bopp ci film yi macha allah théâtre yi ngeen teg noo ngi ci gis bopp bu baax a baax parce que day yeete ci dafay yee nit ñi ci lu bëri parce que di nga jàpp nit di nga def nit même bu fekkee bokk leen deret sax bokk leen dara am na yoo xam ne war nga ko war mm, bañ war nga ko mën a teg daal te lu mu yéenewul boo xam waru ko yéene moromam loolu moom la ñuy wax ni lu waaye ren def la lay naaj on ne récolte que ce que l'on donc moom li muy def li yëpp encore day dellu si moom mais kontaan nañ ci yéen daal kontaan nañ ci yéen bu baax wax dëgg yàlla